bu mooy amaatee sens ñi nga xam ne dama bokk ak ñoom làmbaay tund làmbaay yëpp ñëw daje fii ci kër Serigne Touba gi muy fédération boo xam ne ñu ngi jëlee ndigal ndigal li si Serigne Saliou di dox ba sëñ taxa sama xom la siy sedd lool bu ma ko Serigne Baxaw waxee dama ne ko mën daal incha allah rabbi dinaa fi seen jaayante ànd ak si liggéey bi fu ñu si toll rek ñu xam kon wax dëgg yàlla. Euh, ñu suñu xel dal na lool macha ndax euh, liggéey bii ñu nekk de bi koy mag ñi di fàggu yàlla dafa dogal jullikaay xatoon na fi lool jullikaay bu ñu jullee it lañ ko waajaloon li tax ñu def ko kër Serigne Touba nag dinañ leen wax ci islaay li Alaaji Njugo Kebe moom la Serigne Abdou Lahad Mbacke doon gane fii ci Ndakaaru ànd ak ñetti téeméeru seex ak fukk ak ñett defe naa ni Serigne Thierno Diouf Lambaye bokkoon nañ ci mag ñi nga xam ni tey ñoom lañ dénkoon sax ngan gi ci wàllu baati nag taxawaay beeg yépp yàlla dimbali na ma fekke naa ngan googu keroog la màggu kër Serigne Touba yi dem si sëñ Abdoulaat na ko ñu ne Mbàkke danoo bëgg ñu gane si ci sëñ Abdoulaat na leen man da xajuma ci këru kenn ndax mbooloo mi may àndal dina mat ñetti téeméer ak kook ñett di ay seex ñu doog a fàggu turu kër Serigne Touba sëñ Abdoulaat Mbàkke mi ngi koy njëkkee déggul ci magu pikin yi biñ ne ko kon nag Mbàkke bayaal ba fa nekk de mën na fa def kër sëñ tubaa waajal ko mu ne kon baax na déglu leen ma kon si la ne ah kon nag turu kër sëñ tubaa gi dangeen may may ma tax samp kër sëñ tubaa gi ci Tuubaa muy kër bu mag moom bi ba pare ndax moo war a mag yépp ko defee nag ñu doog a samp kër sëñ gi ci Pikine boo déggee mag ñi naan moo mag ci kër sëñ Tuubaa yi budul bu tubaa bi kon loolu mooy ci silaas kër kër sëñ bi waaye ay vers 1950 55 56 la ko Serigne Mbacke àndaloo ak suñu waajur yi ba samp ko di ko def def julli it ndax jamono boobu bu ñu daan julli korité ak tabaski léeg-léeg ñun murit yi dañ daan tubranke ci gox bi Serigne Fallou ñëw euh, Serigne Mbacke Pikine ñëw ferenkulaay la du ma jóge fii te amuñu ñun murit yi fi ñu jullee it cislaay li moo doon julli waaye it rek waaye kër Serigne Touba nag Serigne Abdoulaye Mbacke moo ñu joxoon cislaay loolu ne lu fu waay soxla sa jëm Touba xaw laa jafe boo àggee fii suuf ñaan incha allah rabbi loolu bu fajuwul rek sa pas-pas xoolaat ko kon sëñ Abdoulaye dimbali nañ si loolu fii ñu nekk njabootu sëñ Touba yi fi nekk. kër sëñ Touba la boo xam ne nag saa yi ñëwee fekk fi njaboot sëriñ Touba ndax sëriñ Saddex Mbàkke ngi fii si ndigal sëñ Murtada ak njabootam yëpp. kon nag ñu ngi sant boo la ñëwee di fédération bi Safinatul Amaan si ndigalu mag ñi. Eh, macha allah man nag lu ma am nag Serigne majju Ndiaye la ndax man moo ma defal lépp ndax ba may bi may jébbalu si moom ab juróom-ñaari at la am ndax ku xam sama waajur xam sëñ Moustapha Guèye Yerwaay xam ne daf ab fa ndax sëñ Moustapha Guèye Yerwaay nee na allah ji yow mi yaay sama Cheikh Ibra waaye Serigne Madiou ak sama waajur doona bokk néegu ndey ñoo bokk néegu ndey ak sëñ Mor mooy waajuru Serigne Mbaye Guèye euh, maam Mbaye Guèye jànkat xasida ñoo ñooñu ñoo bokk benn ndey ak sama waaj sama waaj alaaji banque moo tax sëñ maaj ñu ko Babacar mii dama koy jël si muy sama cër waaw kon nag man maa ngi santaat bu baax xaw ma lenn nag lu xaside sëñ Tuubaa ndax man si xaside rek laa toxoo ndax 1976 dañ taxawal daayira bi gannaaw isbu tarxiya daayira bi moo si topp ndax membre yi taxawaloon isbu tarxiya daayira des étudiants ñoom ñoo taxawal bisru muslimin ñoom Mamadou Cheikh Mamadou Gueye mi nga xam ne moom sëñ Moustapha Bassir ak ñoom maître Madické Niang ak mag ñi nga xam ne ñoom ñoo taxawal Saliou Mbuub ñooñu ñoo taxawul suñu daayira bi ba si suñu jëwriñ bu baax ba yàlla na suñu borom yokk ay leeram sëriñ aatu si mag ñi dañ daan dañ daan ñëw di ànd ak ñun si xasida yi sa boobu ñu si bari bëri fero ñu iji waaye dañ ko daan lijjanti si wàllu nasaraan ay yasur yooyu yëpp kalaamun ak yooyu yëpp français la ko daan gaay di waaye Pastef bi mu ñëwee rek lan fas yéene ñoom ñëpp ku ci nekk bala ngay génn jàng sa jukki alxuraan kon nga xam ne liggéeyal Serigne Touba rek moom moo fi nekk kon daayira bi yàlla na ko Serigne bi barkeel. man de engagé naa incha allah rabbi dinaa ko wax Baxaw sas yéeg lépp fu ñu su toll na ma koy wax rek incha allah lu ma ci mën a def dinaa ko def ci wàllu communication nag yàlla dimbali na ma damay jëflanteeg ñu si bari te dinañ ko yaatal ndax oxygène laa nekk fa laay defee émission chaque dimanche si jaar jaaru mag ñu baax ñi. Touba TV tamit ña fa nekk ñoom ñëpp samay xarit lan yooyu dafa jot nag ndax comme ndigalu mag ñi la day jot léeg-léeg ñu def émission spéciale def plateau spécial ndax ndigalu mag ñi la di ko yaatal nag waaw ndax mag moom bu xasee boox rek dañ war a def laxasaay ba tund bawol yëpp waxuma la làmbaay waaye tund bawol yëpp yëg ni lii ndigal la loo xam ne dafa war a yaatu mu nekk fédération bu yaatu ndax tamit euh, boo gisee lii am solo moom mooy dimbalante bi la ndax dëpp sëñ Cheikh Mbacke bi muy taxawal daayira si sart yi nga xam ni social bi daf see bokk muy dimbalante xamante ba pare di dimbalante loolu mooy cislaayu daayira ndax taaliba fu ñu nekk dana war a xamante am naa doom boo xam ne dafa ma tàggu di dem bitim réew di jàng ji France ma ñaanal ko ne ko boo demee nag boo nooy cëpp say bagage fexeel ba bokk ci daayira murit cislaay la ndax lii ngeen def jógee Bawol ñenn ñi sax fi lañ juddoo def fédération waxuma la ngërëmal sëriñ bi ci sàkkur waaye daf lay sécuriser daf lay téye zahir ak baatin kon nii na sax te na yaatu te communication bi di daf daf na bokk ci programme bi daf benn bis benn benn benn plateau spécial waxtaane sunu mag ñu baax ñooñu waxtaane Cheikh Aliou Diouf Lambaye Serigne Momar Mané ak Cheikh Babacar Ndiaye Thiergane mag ñi nga xam ne tey ñoo tax ñoo tax ba ñu am jàmm loolu dañ dañ ko di wax dañuy dimbali ba nga xam ne si wàllu social beeg wàllu yi nga xam ne sax daf ñuy dal ñun waa sow te ñu yaakaar ni ñun waa Bawol ñu xaw a ñàkk ndax ku xool liy dal parc Lambaye parc salle de vente ñu fa nekk ñëpp seen i mbokk nga fa waaye dafa mel ni dañoo néew doole. bu ñu taxawoon si li liggéey sëñ Touba gën a yaatalaat loolu di def plateau xam ni kat ñun bu liy jotee ñun murid yi nga xam ne ñoo féete foofu taxawu leen zaahir ak baatin ba seen bët du xonq waaye léeg nga gëstu sax doo gis kenn. ndax maanu nag ak xaar ndigal waaye nag dafa jot nag lu mel nii bu lu mel noonu amee tamit luñ si mën a def rek jàppale leen si wàllu social sax laa wax si wàllu zaahir ak wàllu baatin taxaw leen ba ñu jotaat foo xam ne ndax ndigal la bi leen i mag ñi di jox dem leen si pàkk yi ngeen liggéey di tàmbali jaay bitee la ki wut ay saako boobu ñaanu sëñ Babacar Thiergane la woon ak Cheikh Aliou Diouf kon loolu ñun ñi nga xam ne ñoom ñoo fi dese ndax sëriñ Modou Moustapha Mbacke nee na lu baax fu mu dem ku baax moo ko fa bu fa saxee nag ñi fay defar ñi ña fa nekk ñoom ñoo ko saxal kon ñu ngi ñaan di jégalu kàddu yi rek eh, di ñaan man daal wàllu communication bi incha allah dama bëgg ñu ma ma am ci cër. fexe ba Touba TV Lamp Fall rajo yi murid yi nga xam ne ñoo ne fii xam ndigal yi lan moo ko waral di waral di def ay plateau spécial fu daayira war a am mu dee tubaab bu dee Lambaay bu dee ndakaar ñu yaatal ko ba murid yëpp ñëw boo xuma la fii si bayal waaye bayal bee ñuy jullee it murid dañ fiy ñëw kon ñu ngi jégalu baax. ndax waxtu bi ak programme bi sëñ baxaw alaaji ñu ngi ziar baax kii nag sama rakk la dana bokk lépp fee ma nekk ci kunun léeg-léeg ma am liggéey boo xam ne sax dina ma xaw a jafe waaye su ma ko téléphoné na ko nangam ak nangam mun na ma Babacar demal toog dinaa ko defaral ba bërki démb rek sama néeg sama kër bi may toxu saal ba dama ne ko ah buntu yëpp pare na de waaye dafa ne ma maay jaayante buntu saal ba moo ko defar lu ci war lépp mu indi ko kon euh, li ñu bokk sëñ tubaa bokk ko bokk xaside yi ndax fii ñu nekk maak moom fii ñu toog bis xaside bi ñëwee mbooleem gan yi nga xam ne ñoom ñoo leen teral lépp ci loxoom laa koy teg ganu sëñ Touba yi nga xam ne Touba leen jóge jógee fépp bu ñu ñëwee fi ëtt bii duñ fi jóge jógee daanaka baxaw mooy taxawul lépp xamaa yore akay bi waaye daanaka man moom mooy sama loxoy ndeyjoor di samay loxoy tàmm tàmm kon maa ngi ñaan suñu borom yàlla barkeel ko moom it si barke Cheikh Babacar ak sëriñ Aliou Diouf si barke xasida yi sant nag bu baax a baax di jégalu kàddu yi tàmmuñu sax di wax si mbooloo nag xëy na nitu rajo la ba ko waaye nag wax si mbooloo yu mel nii daf ñuy jafe lool lool lool ñu ngi ñaan daal lépp lu ñu fi wax rek suñu yéene euh, kawe na lool kon ñu ngi ñaan si barke xasida yi rek ni ma ko waxee sànq rek euh, nii la mawlud danoo mos a a sëriñ Mbay Ñang bi naan jàng sëriñ Abdou Lahad magub taalibe ziyaare ko ñu ne ko ñun de mba euh, ñang sëñ bi ñun de ay tuut tànk lan waaye lu xasida yi ak yëkkati xasida yi ñoruñu mu ne waaw njàngum xasida euh, euh, moom moo koy indi waaw rek kuréel nag bu ñu xasee ba taxaw mu ne ba toog mu ne ma njàng mu déggoo li koy jëkk indi tàmbali bi moom mooy bul njëkk jël bul mujj a daaneel waaw ndekete yow mi ngi ñuy wax loolu xew léegi muy répétition nit ñi sax dañ koy wax répétition man dama koy teree dama naan fii saytoo xasida yi gën a saytoo wat njàng mi jekkoo njàng mi rek waaw répété moom ndax xasida bi moom saa yooyu jàng rek yaa ngi yaa ngi yaa ngi yaa jaamu yàlla waaw waaw répétition moom ñi nekk ci yeneen bagage yi ñoo koy def waaye ñun moom dañuy saytu rek xasida yi sëñ Tuubaa ngir njàng mi eh, gën gën a tegu rek waaw te xasida yi moom positif rek moom moo koy doxal waaw du ay baat bu neex ak du ay dem naa ni lem ak dem ci buntu géej ga du yuuxu déedéet sëriñ moom boo amee positif ci xasida bi rek moom xasida yi moo lay gàttanu maam baatin bi day day day day moom day si saa si rek nopp nit ñi dañ koy dégg tey jàkka ji bi ñu bi ñu mayee léegi sama benn ñoo nga fa sax fi mu nekk bi ñu bi ñu bi ñuy déglu bi ñu déggoo njàng mi ñu xam njàng ñëpp danoo danoo teewluwaat njàng mi ndax njàng mi yaru mi waaw njàng mi si boppam moo moo moo yaru waaw te njàng bu yaru rek eh, ndax yar moom dafa bokk ci cëru murid saadix yi sëñ Tuubaa loolu la rawee mboolem ku yàlla bind mbooloo mu ànd doon benn waaw ak yar ak teggin sutura moom la sëñ tubaa loolu rek la la doon yeesalaat lil Moustapha nawaytu maa ngi jënd sunnatoo xarala wa inni ahmad yeesalaat rek moom moo waral ahmadu raw ku yàlla bind. te yeesalaat mooy yar ak teggin kon nag sant nañu baax di ñaan suñu borom yàlla na yàlla na daje ak mbootu xasida yi allahumma salli ala sayyidina Muhammad barke borom Touba.